ni ma la bëggee ni ma fooree sama chéri sooree bul ma sooree sooree sama chéri. asalaamaaleykum ñu ngi nuyu ku ci ne si turam ak santam man la Abdou Karim Seck président mouvement Dekkal Cosaan. Nek fi ci Grand Thiès kër El Hadj wa assalamu alaykum wa Senegal, assalamu alaykum wa Thiès kay alaykum wa groupe EDJ ma ngi nuyu ñepp nek ku ci nek sa tour ak sant man la mohammed Lamine wad wa mohammed wad ñu gën ma xam ci Lamine wad may dekk Thiès di doomu Thiès yaro Thiès màgge Thiès defé sama lepp Thiès waaw marché central don fa yëngu sama activité nek aussi tamit le coordinateur du mouvement Thiès kanam bi nga xam ci lama ñepp xamé ba dayer sax ñom ci loolu lañu gëna misé wu ba tax ñu boole ma ci seen invité d'honneur yi NJ yaag sa groupe yëpp maa ngi leen nuyu ku ci nekk sa tur ak sant vraiment di am mbégte ak contentement ci ànd ak ci seen bis bi. macha allah voilà ñu kon nga waxee rek Mouhamed Wade nekk le coordonnateur sa kanam nga xam te ni Sénégal ñëpp xam nañ ko avant ñoo ñëw si yooyu pourquoi le choix ngeen indi ñu fii nga xamante ni mooy place Mamadou Dia bi pourquoi. waaw xam naa aussi tamit euh, parce que laaj laaj boobu daf may neex parce que le fait que ñu fekk leen seen kër yi. seen saal yi xam nga ñi seen bërëb liggéeykaay man ma tànn pour ñëw fii ci place Mamadou Diaw bi parce que kii day nekk dafa dafa nekk symbole symbole fii Sénégal nekk symbole ci bépp ndaw boo xamante ne bii da nga jug uniquement pour taxawal saw askan dafa nekk symbole ci bépp nit koo xamante ne bii tabax sa gox wala tabax saw li jëmale sa dëkk kanam da koo bëgg a def da ngay jël royukaay ci ñu mel ni moom du Dia muy référence ci ñun xëy na nag suñu borom bon boolu ñu ci ñi fekkoon ci jamonoom ay jamono bi muy génn àdduna aussi tamit bon fekk nañ ñuy dund tax ndax yàggul mais jamono yi mu koy mën dëgg dëgg dëgg nekk Sénégal di doxal bokk ci ñuy doxal Sénégal jamono yooyu xëy na suñu borom fekk wuñ ko woon mais moo tax def lu baax am solo ci kaw suuf def lu baax dafa am solo ci doomu aadama tey ñun màgg nañ ràññee xàmmee xam ni képp kuy ndaw di yëngu ci wàllu politique wala nga yëngu ci wàllu adduna wala ci wàllu luy doxal sa gox rawatina ñun ñi nga xam dañu woote Thiès ca kanam lu jëmale Thiès ca kanam comme dañu woote lu jëmale Thiès ne bi dañ doon def lu jëmale ci kanam faaw ñu rey ci ñoom loolu tax ma tànn place bi pour ñëw indi leen fii nga xam ni bu ko defee Thiès waaye sénégalais yi xam ni place Mamadou ja ça existe ici au Thiès te képp koo xamante ne bii wax dëgg yàlla bëgg nga doon symbole ci sab dëkk ci def lu baax da ngay war a roy ci ku mel ni Mamadou Dia loolu tax ma indi leen fii NJ waaw NJ xam nga àdduna aussi boo ci nekkee lépp looy defee dangay ngay bëgg gën a dem ci kanam sa kër sax boo ci nekk boo ko yoree da nga bëgg kër gi gën a dem ci kanam yow sa bopp ci li ngay yëngatu ak li ngay def da bëgg saa ne ak waxtu ne muy gën a jëm ci kanam ci kaw loolu ci lañ créé mouvement bi nga xam moo tudd Thiès ca kanam sosu mouvement bi mu soso nak wax deug yalla ñu nekk ci and ak wa mouvement bi and ak wa Thiès way sax lay wax def uniquement lepp lo xamni ne luy jëmale aw ap ap ap gox ci kanam la mouvement bi ci la nekk tour bi rek tour bi rek dafa liggéey lu bari tour bi rek tour Thiès kanam dafa ëmb lu bari képp ko xam yaangi ngi Thiès parti boo mënti bok wala foo mënti dëkk rek yaangi ci biir mouvement Thiès kanam bok ci waxin ni ñi ngi ci ci waxin ni ñi ngi ci jëfin ñii ñi ngi ci ci wax and ak jëfin aussi tamit parce que képp ko xamante da nga bëgg lepp lo xamante bi yow fi nga dëkk yaroo fa màgge fa da nga bëgg mu jëm ci kanam te saa boo sañoon da ngay bëgg mu raw ci dëkk yi parce que àdduna des fois da ngay dégg ñu naan la ñëpp a te fekk ñëpp yemuñu ndax dañ naan ku ñu woon yàgg sa sa baay ak ñëpp yem di nga mere ñu bari ku ñu sa sëriñ ak ñëpp yem di nga ñu bari kon nag képp ku nekk ci dëkk dangay fexe ba buñ sa dëkk buñ koy yemale benn dëkk nañ fexe ba sa dëkk saa su ne muy raw yeneen dëkk yi looloo waral ñu ñu jël turu Thiès ca kanam chaque jour nag ka jafe yàlla mi ñuy dimbali waa Thiès ca kanam yëpp nag commencé ko ci bopp ba ci souf ñun ñep vraiment ñi ngi def lo xamante ni luy jëmele Thiès ci kanam la looloo waral tour bi vraiment muy tour muy tour bu reuy nak té it ñu ñaan suñu borom defal ñu ci ndam ba lépp lo xamante mi sumb nañ ko ci té nas ko ci pour lu jëmele suñu gox bi di Thiès ci kanam yalla ñu suñu borom defal inshallah wa d'ailleurs aussi tamit euh, bon di nuyu au passage le président du mouvement monsieur Pape Doumbia PDG groupe Prestige vraiment di un ami sama xarit di kenn ci man aussi. wax dëgg yàlla suñu borom boole ñu ñu yàgg lool tey may ñaan aussi suñu borom gën a saxal ànd bi aussi ànd bi nag dëgg rek moo ko lan maa ngi suñu borom gën a saxal ànd bi xam tey li nga wax rek bari nañ ñu ko wër bari nañ mais man buñ ma jëlee def ma le responsable jox ma responsable boobu muy def ma le coordonnateur de ce mouvement xëy dañu amoon yaakaar ci man yaakaar googu nag ñu ngi ciy suñu borom bu baax a baax a baax ndax lépp lu ñu sumb bala ñoo bàyyi day fekk mu dagg ñu ngi ciy sant suñu bu baax a baax a baax d'ailleurs aussi tamit am na ci luñ jot a jóge muy élection yoo xam ni mouvement Thiès Kanam natt nañ seen bopp suñu borom defal ñu ci lu kawe nag suñu suñu jot parce que première participation ñu génn ci ak presque ak mille deux cent et quelques voix ko loolu yombul ci première xëy na aussi tamit bon xam-xam bi biñ ciy dugg xawoon na des tuuti mais lépp na moom lépp njàngat la responsabilité yi ñu ma jox aussi tamit bon xaw ma nag li may doxal mi ngi jaar mi ngi jëm kanam wala jëmul kanam mais ma maa ngi ñaan yàlla bokk saa su ne ak waxtu ne coordination bi ma yor ci mouvement Thiès Kanam di

tey boo ñëwaatee feneen ñu jël responsabilité yooyu dénk la ko ni la doxalal xëy na am nañu yaakaar ci yow yaakaar googu yàlla ci suñu borom gën a teg loxo ba léegi nga xam ne sumb ko ci te mébét ko ci daal suñu borom defal ñu ko incha allah. waaw mais rëy rek rëy rëy na trop ci man parce que comme li ma wax sànq rek laay wax Thiès waay bari nañ trop trop trop trop tey groupe NG Family di télé bu mag bu nekk Thiès parce que mën naa ni tey animateurs yu bari ak animatrices yu bari présentateur émission ak présentatrice émission yu bari yu nekk yeneen télé tey mën naa ni NJ Family moo leen feeñal moo leen feeñal ba tax yeneen télé yi mën leen am tey ñooñu bu ñu ñëwee nekk cees di oeuvre nag biir cees di oeuvre lu am solo tey jël la boole ci seen i invité d'honneur boo loolu cër boobu loolu cër mënu cër cër cër mënul mënut a gën a rëy loolu man nag fierté la ci man te yaakaar gi ngeen am sax ba jox ma cër boobu incha allah xaw nag lu suñu borom di def mais jàpp naa ne man waa groupe NJ Family duñ ma gën a gore parce que lii dafa nekk lu rëy ci man te lay bari nañ Sénégal Thiès waay bari nañ man ñu tànn ma en tant que ndaw en tant que jeune nekk seen biir parce que ñun ñëpp ay jeunes la ah, ñaa ñëpp ñoo maase ñun ñëpp ñoo maase tey ngeen tànn ma ci biir ni ma yaay da ngay bokk ci sunu invité d'honneur yow lañ def sunu invité d'honneur cër boobu dafa rëy ci man bon ma ciy woon ak waa mouvement Thiès sa kanam bi yëpp nag commencé ko ci booba le PDG Pape Doumbia ba ci suuf leen woo ñoom ñëpp ñu ñëw gunge ma ci bis bi ñu ànd dem fekk ci waa groupe NJ Family cër bi nga xam nañ ma ko jox ñu dollee leen cër boobu maa ngi ci woo ñëpp nag képp ku nekk sama staff di ci woo sama waa famille di ci woo ñëpp di ci woo aussi tamit vraiment ñi nga xam samay niti bopp lañ nekkuñu Thiès mais ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ñi ngi Dakar ñi ñi ngi feneen ma leen di woo ñoom ñëpp te incha allah dañu pare pour gunge ma ci bis bi ma ci cité kenn notre présidente présidente mouvement Ansaroudine mu président mouvement Ansar Safrula notre euh, la présidente Aissat Sabar honorable député Aissat Sabar tay suba rek ñu ci doon mujjé waxtaan tay suba dañ doon mujjé déggan téléphone di waxtaan ci walu bis bi vraiment aussi tamit cër bi mom daf mom daf ko jël fété woko vraiment tay suba lañ doon mujjé waxtaan ñoo ñëpp aussi tamit ñu fas paré pare fas ba Dakar ñëw Thiès gunge ma ñu and dem sét waa NG Family ci cër bi nga xam dañ mako jox awma lén lu may def lul di remercier képp bép nit bo xam ne yaa groupe NG Family bép nit bo xam ni yaa ngi liggéey sen 24 man Mouhamed Lamine Wade maa ngi lay sant maa ngi lay gërëm ci cër boobu nga xam jox nga ma ko ba tax ngeen def ma invité d'honneur te incha allah ma fas yéene ànd ak yéen du yem ci bii dama fas yéene def benn partenariat boo xam ni partenariat boo xam ni lépp lu ñu leen mën a gugee lépp lu ñu leen mën a accompagner man ci sama jëmm ju ji dama pare pour accompagner leen ci loolu incha allah waaw li may ñaaxee ndaw ji rek parce que adduna moom àdduna jàmbaar maywul dara ku jàppale moo fi nekk mais jàmbaar dina tax nit ñi naw la ba tax am ci am am ba tax am fu la féetale ba tax am ci responsabilité dañ la ko mën a jox limay denkat sama moromu jeune yi diko denkat ñepp nak moy dañ nan deretu ndaw bax la baxo mais xënd diko xam sa su ne amu ci yoon parce que deretu ndaw dafa gawa tang ba bu ñe mbili mbacc ñu commencé salfañe def ci yeneen ak yeneen yeneen yi am solo ba am solo ci ndaw moy bëss bi nga wess wess na tay yaangi sa tay ci ngay mëna liggéey pour sa ëllëg suba ma ngi ñaaxal sama mbokk jeune yépp rawati na ñi nga xam fi la dëkk muy Thiès sama morom ndaw ñépp li nga xamanteni bi mo nek ci suñu avenir dañ ko wara téré liggéey tay tay tay tay tay bu ngeen gisé tay ma tok fi ci place Mamadou Dia pour bëgg image Mamadou Dia di génn dama bëgg ñu jël référence ci ñu melni ni ñi nga xam dañuy gëm seen bop gëm seen réew gëm seen dëkk bo gëmé sa bop gëm sa réew lu way di am dañ ko bay ak mom te xamni yalla moko jaglél té nga jëma ñafé pour am lako raw am lu ko ëpp baña a sa bop baña a sa bop parce que doomu aadama du suufeel boppam àdduna lépp looy nekk buy metti di metti di metti di metti di metti nekk ci di te di ko ñafee amul kenn koo xam ne amul ndaw ñi yéen laay amul kenn koo xam ne di nga nekk ci dara muy metti nga sëgg ci bañ a bàyyi suñu borom di la neenal amul nit ki saa boo xëyee fexeel ba bul ak fexeel ba bul ñee kenn ku la na la ñee yaakaar yaa ngi àdduna ak ci biiram fekk xëy na yow booy dox sa yoroo dara mais lépp sutura la ak sag nit ki yaay sagal sa bopp yaay suturaal sa bopp àdduna boo ci nekkee saa su ne bul xool bul xool ki lay nax bul topp ki lay nax yawit bul jema nax nit ñi nga xam ñoo lay topp te bul jema top lo ñi nga xamante ne dañu am yaakar ci yow sa suñu ak waxtu wu ne lepp loy def diko ko mu nekk lo xam lo gem la ala kulli al suñu borom dina ci tek dina ci tek tank tay kep ku fi nekk muy jeune partout au senegal nak bis bo jappé ni wala nga def sa xel ubi sa bopé xam ni wërsëg borom moko ko te inshallah li nga wara am sa aduna suñu borom bind na koo pare dootoo ñàkk feere ci dara doto top kenn bayram nekk ci li nga wara nekk xalaa kuli al sunu borom dina ñëw tey groupe NG Family exemple la ay groupe jeune ñoo fa nekk ba tey xoolal bañ dalee ñafe ci kaw bañ dalee ñafe biir Thiès ba léegi yàgg na te yàlla dimbal na leen fépp fu ñuy dégg yeneen télé ñu ngi leen fay dégg loolu laay ñaaxe sama morom ndaw ñëpp na ku ci nekk gëm sa bopp nekk ci li nga war a nekk jox sa bopp yàlla yàlla mooy maye lu waaye ñàkkit sunu borom moo la ko xañ mais li am solo ba am solo mooy ndaw du yaafuus nit du yaafuus del kërti kërti même bu doon ko yóbbu sa njaboot wala ko sa kër sax demal ci kër ci kër ci jërëjëf. yow laa bëgg bul rus wax kooko xol di taf taf ci yow samay bët woon laa ko mbëggeel day naa buy du taago ku ne am nga ko loof nga wet nga